bienvenue à d'autres scandales toujours ci biir scandale du jour euh, kii nag def na ay révélation yu doy waay muy général ji gi moom nag xamal nañ ni laata dialogue bi di am moom xam na ni te Pastef xam nañ ni Sonko mooy sàkku dialogue te bëgg na dem dialogue nañ dem seetaan vidéo bi. report bi dañ ko waxtaanee. Hmm. oui toujours ma wax ko. toujours ma wax ko sama xarit passé fi mané len am len honnêteté jàkkaarloog sénégalais yi wax len ni Ousmane Sonko dafa waxtaan Babacar da nga fogg né détenu politique yi génn ni dafa génn ni rek par hasard dañu jékki-jékki rek ubi buntu yi ñu génn non demewul non da nga fogg né ngañ Demba Touré mi jógee Mali dugaat ci dëkk bi dara xewul dafa jékki-jékki rek am ah, mëna dugaat dugaat lu ci ginnaw mënu ko won El Malik dembu mu tok ci ben plateau télévision nan ñun proposé wuñ dara waxul dëgg Ousmane Sonko waxtan na ak président Macky Sall bal mo wax la Atepa bi jomay nekké candidat Atepa ci la xar tank tubayam pour waxtan am parce que Atepa dafa jaga Ousmane Sonko investir ci mom 2019 ci financer campagne Ousmane Sonko ci la bok jege ko bok ci projet bi Atepa buñ ko waxone que dañuy ñew bu fi ñu jël projet bi ben boy buñu wax Jomay muju nek président de la République du ko gëm parce que lool taxul muy investir ak xalaat yim am ak bok gim bok ak Ousmane Sonko liñu gëm lu nek ci sen bop Atepa buñ ko won Jomay muy mujjé projet bi du ko gëm Usman Ousmane Sonko tamit xam na ne Jomay su nekké président dutu nek boy Ousmane Sonko ndax kenn du nek président di nek boyu nit Ousmane Sonko tamit bim nek ci kasso bi kasso bi jangal ko lu ndax kasso day ubbi xelu nit ndax da ngay waxtaan ak sen ngegenaay xam na ne bras de fer ak tal ay mbedd du joxe pouvoir xalaat na ci bu baax até atepa waxtaan ak mom waxtaan ak président Macky Sall ni djubo Ousmane Sonko ne sur source ngay waxe wala ah, dama lay wax lima lay wax tay lu leer la Ousmane Sonko ne nañ génné détenu politique yi lolou lim ci djublu moy xam na ne su génné baye fa détenu politique yi dana wañi sympathie bi sénégalais yi am ci mom ndax dañ naan lañ ko xéxal bañ japp len mu génn bàyyi leen fa moo tax mu ne nañ génn détenu politique yépp d'accord na pour waxtaan ak président Macky Sall man maa la koy wax man général te moo proposé pour détenu politique yi génn te Ousmane Sonko ñu reporter élection yi moo ko gënal parce que jàpp ne ne mun warul liggéey projet ba mu agsi fii mu di ko yàkkal jomaay fay bi nga xam ab booyam la te politique lay wax ñooñu nekkuñu ci diine nekkuñu ci l'islam duñ ay yonent nit yi àddina kese la ñu yuut nguur Ousmane Sonko mook père Goudia bi Atepa ñoo waxtaan ba xam ne jomaay bu këfee affaire yi seen projet dana yàqu jomaay tamit ñi boo gisee coow li bari ñi sës ci jomaay parce que am na ñoo xam ne jomaay lañ gën a jege ci Ousmane Sonko te Pastef lañ bokk loolu ñiy def politique xam nañ ko. xam nañ ne des fois ay produit produit waaw waaw des fois nga gën a jege leader bi si ki nga xam ne mooy incarné parti bi. léegi nag ñi sës ci jomaay comme jomaay rëcc na ba nekk candidat ñoom it ñu def élection moo leen gënal. parce que ñoom tamit ci la seen affaire di gën a baaxee liñ bëgg a mottali si seen gëm-gëmu politique si lañ koy mën a mottalee ñooñu tamit ñooy teg pression ci biir Pastef pour yam Ousmane Sonko tamit di waxtaanee ñoom loo xam ne bëggul askan wi xam ko ndax Ousmane Sonko dafa am benn départ bu mu def dafa déparé wane ne moom guerrier la ngand la daan ne moom bu naree dem dialogue sax ba marle mooy dekki léegi nag bu demee ba génnaat ci loolu nu mu koy waxee Sénégalais loolu mooy problème am moo tax mu koy négocier ci suuf ay nitam génn bi kaw ci di wax ak sénégalais yi naan leen loolu amut mais loolu moo am négocier na te li ma lay wax ni histoire na ma jox dëgg beneen bi si topp mooy Amadou Ba moom it li dal jomaay moo ko dal Amadou Ba tamit bëggul élection yi ñu reporté parce que dem ak jomaay élection ak 19 candidats yi des moo gën a yomb ci moom loolu la jàpp moom ak nitam xam na ne su Karim Wade bokkee Sonko bokk day gën a jafe si moom moom mom du xeexkat mais stratège la momit muy liguey lu mu man stratège waaw stratège la momit muy liguey lu mu man pour élection yi am da nga jàpp ne cassé bi conseil constitutionnel cassé dogalu Macky Sall bi da nga jàpp ne nen la non non du bi du nen de amna lu nek ci suuf Amadou Ba ku bëri doole la ci état bu Sénégal ci administration bi bari doole ci Benno Bokk Yaakaar bari doole ci APR depuis 2017 moo ngi liggéey pour agsi fi mu agsi man may wax ak yow. et les autres nag maintenant. benen camp bi déglu ma rek nga bëgg ñu baral xam la may ñew la mi ngi liggéey pour axe fi mu axe momit it hmm. Macky Sall mo ngi def limi def mais mom Amadou Batay mi ngi téye fi mu téye moom élection am moko arrange parce que xam na ni su Sonko bokké ak Karim Wade ay sansam day wàññi dama mos dégg nga wax ni ñi ngi massa mais jibo am fi wuñu ma jambal jaaj mo leen juboole ak patronat bi ma jambal mo ubbi bop Macky Sall ne ko bitti gaa ngi tàkk boo taalee gi do am fo jaar comme biti gañu tak négocier bir gi lolu mo bolé Amadou Ba mais nit nan nañ la wax né ki dafa ab dafa corrompre nit nan lañuy wax dafa corrompre bam jaral la ngay dàq ay élection yow président de la république ba nopi ñew togaat conseil des ministres naan renouveler sama confiance ci moom kiñ ne mom dafa corrompre xoolal loolu dafa contradictoire dans tout ça tamit Karim wat lu man fa wara ma nekk dinaa ñu ci Karim mais dama lay wax ci kaw Amadou Ba ak wa Benno Bokk yaaka mhm. fi mu ñi jégué Macky Sall lu ñu man ñong koy def gis seen Macky Amadou Ba gis seen bouti yi lañ yemale loolu moy dëgg mais mënaluñ ko dara parce que dafa bari doole lim téyé mo ba Amadou Ba il est très dangereux parce que ab kat la stratège bu graw la jekku na Macky Sall bu wër ko ndomba lim Macky bëgg bëgg ko lim lim lim bëgg Macky bëgg ko mais mënu ñoo takaliko fofu lañ toll bu dé Amadou Ba ak Macky Sall li la wax ci wa poste dara du ko dindi Karim tamit kam. Karim biñu dem dialogue dafa lànkoon baña dem dialogue deglu bu baax li Dafal lay wax dafa baña dem dialogue il a fallu Macky Sall waxtaan ak ay kilifa fi ci réew mi kilifa yoyu waxtaan ak Ablaye Wade ñu waxtaan ak Karim ñu jox ko garantie ni ko da ngay bokk kilifa diine wala kilifa aduna duma ak du man ci loolu lay yem ñu jox ko ay garantie ne ko da ngay bok karim dafa warona a ci election yi loolu la waxale won si si ci dialogue bi li indi li bolé khalifa sall loolu mo warona a karim pexé yi ñu wax nak na moko génné lolou mo indi ñu reporter election yi wa PDS tamit ñom tamit am information langaamu ñoom tamit ñom it ñoom am na fu ñu jàpp fu ñoom it am lu fuñu japp jàpp de fu wor ñoom lepp tass ñu delu wat a zéro mo leen gënal loolu mooy dégg léegi nag réew mi jaxasoo na fi la réew mi toll jaxasoo loolu fi la réew mi toll Babacar ku la wax leneen ku la wax leneen dafa wax lu ko neex waxu dëgg. léegi nu ngi koy lijjantee conseil constitutionnel jëlaat mbir mi maa ngi lay joxaat beneen révélation nga jël nga waxtaan ak say bu Macky Sall démissionné bu mu la bett le deux ñu wax ni warul nekkaat président lu ko bu Macky bu mu la bett pour ñu tasaat lépp maam booy président assemblée bi moom loolu arrangé wu ko ñëwal ñëwal Macky ngeen au conditionnel bu démissionné Amadou Amadou Maye mooy ñëw waaw Amadou Maye yoon yoon ñaata la ko may pour mën organiser l'élection 3 mois 3 mois waaw boobaa day def gouvernement waaw légui buñ fa aggé mu organiser l'élection waaw légui après waaw mais ñeneen ñëpp ñëw bok est-ce que duñu wax est-ce que duñu wax ne baal ma tënk allez kon dialogue ba la kon dialogue bi li jëri bal ma tënk xala dialogue bi ñu gis si dialogue bi lenn lañ lañ la dialogue bi lenn la hmm. su fekkee ñoom ñëpp d'accord nañ pour que ñu dàq élection yi sonko mom d'accord pour ñu dakk élection yi tas lepp li mom maa ko wax parce que mom bëggul jomaay nekk euh, euh, candidat wu pestef di gagner ay élection bëggu ko atepa mi nek ci digënté bi bëggu ko comprendre nga wa PDS bëggu ko légui nak nan lañuy duggal ci bop sénégalais yi fexé ba duggal ci bop sénégalais yi ne Ousmane Sonko nangu na ñun ñëpp nangu nañ pour ñu dakk élection yi fofu lañ tollu ñom eh Sonko mësul waxtaan da ngay juum Sonko waxtaan. <laughs> wa passif duñ ko mësa nangu yo gisoo dem ñu def sen conférence de presse xawma barki dem naan sakku ñu loi d' amnistie <laughs> ñoom ñu ne sakkuwuñu loi d' songo na tëdd rek waaw na tëdd bañu atté ko budé def na mu tëdd budé deful mu ñibi waaw wa sonko duñ ñu mësa nangu ni sonko dialogue na bo jëloon paaka teg ko fi duñu mësa avoué ni sonko moone nañ dialogue donte wóoru leen sax mais dañ ciy rey seen bopp duñ ko gëm ah parce que nag seen njiit moo leen ko gëmloo woon Sonko a toujours dit que jamais mu dialogue ak président Macky Sall gis bopp Marley gën a yomb gis ko fa donc yaakaar naa hmm? Sonko moomu ah man de bu dee kii na tamit dialogue na tamit dina doy waar ci man de man de neexut a gëm moom ja Sonko waa Pastef duñ ko mës a nangu nag ils vont jamais accepter que Sonko Mo bëgg dialoguer Sonko Mo bëggoon dialoguer te loi d'amnésie, bi nag tey ngi déglu revue de presse président Macky Sall jébbal lako ay ministre ay ministre am bëgg koo jébbal assemblée nationale. xam nga président Macky Sall Abdou Nguer wax na la mag du fo gëna ci li nga né démb la fi def sama sondage ñepp tout le monde ñepp ba ci commentaire yi nee nañ non. à cette loi d'amnistie ndax nak euh, dégg na aussi ba tay ci bir euh, euh, revue de presse mu nan waw ñi ñak seen ki nguur gi day jël seen responsabilité légui ñi dé nak da ngeen matériel mën ngeen ko fay ñi ñak loxo mën ngeen ko jënd mën ngeen jënd ay protège mais lan ñi ñak si bi ha ah, bi de yalla rek mo koy joxe te bu ko joxee ba jëlat amo makama ba mu lako amut ça n'existe pas amul donc nag président Macky Sall ha baax na am amnistie Ousmane Sonko yàlla baax na ndax nee naa leen Sonko donte nee na sàkkuñu ko ay ay ay leader am génn nañ def seen conférence de presse ne ñoom sàkkuwuñu Sonko soxlawul loolu te nag président Macky Sall loi si bi lu mu nar a lu mu lu mu nar a yàq moo gën a bëri les manifestations xaw ma ndax xam nga ko mag du foo Abdou Nguer wax na la ko président génn si li nga ne ah, baax na député yee ci des mag député yee des ci mbir yi ndax ñoom Macky Sall du ñu ay député président Macky askan wi ñoo leen fa yóndi parce que man munoo tëb waxi fa Samba munul tëb waxi fa Demba munul tëb waxi fa dañoo tànn ku ci nekk kenn ñu ne la demal nga représenté ñu loo fa wax ñu la ko ñun ñoo la ko wax loo loo fa def ñun ñoo la ko defloo ñun ñoo leen yóndi loi bi bu leen ko voté ndax nag li ci nekk moo bëri te risque yu mu nar problème yu mu nar a sulliwaat moo raw événement 2021 ba à nos jours wallahi moo koy raw na ngeen génn ci li ngeen te xam ne président Macky Sall moomu leen askan wee leen yóndi te c'est à vous de nous sauver de cette loi yéen a ñu war a sauver nag dëgg fa yàlla ndax nee naa leen man ànduma ak Sonko ànduma ak ñi nga xam ne ñooy jooy noppeeguñu dama ànd ak ñoom dama ànd ak ñoom ndax am na ñoo xam ne deele nañ wallahi nee naa leen dañoo surveiller seen doom ba sonn xale bi rëcc ndax lan sonko woote ndax seen mbëggeel ci sonko dañoo xër ci sonko du mbëggeel de xam nga tubaab am na nu mu koy waxee obsession nekkatul mbëggeel maanaam feebar la feebar lañ am ci sonko moo leen yóbbee dee nga bëgg a jël lépp fomp ko ah président Macky Sall génne ci loolu léegi nag ministre yeeg pare nañ président Macky Sall pare na député yee ñoo ci des les députés yéen yéen a ci des muy bu Benno Bokk Yaakaar ak mu waa Pastef ci boppam waruñoo nangu voté ko man de gëm naa ni duñ ko vote ndax nee nañ seen leader soxlawu ko donc nag kon kon ñoom nee nañ seen leader soxlawu ko sakkuwu ko faalewu ko buggu ko yéen seen preuve bi ngeen war a joxe mooy vote bi bu jotee ngeen bañ a voté ni ngeen bañee woon voté loi bi nga xamante ne décret bi ñu waroon génnee pour pousse élection yi noonu ngeen Guy Marius Sagna xola fi ñuy kiiwee euh, kees bi mooy fi ñuy dugal vote yi buuxaat ko ëmbal lépp nga yóbbu bu fa bàyyi dara këfal lépp nga yóbbu bi yoon moom dañuy ànd ak yow cent pour cent ndax loi bi dañ koo wër ta voté sénégalais yi koo fi tàllal micro mu ne la vraiment soxlawuñ ko dañoo soxla sonko ñu juge ko képp ku takk ci sonko ñu juge ko képp ku ñu jàpp fële ñu juge la xam fu dëgg féete bu fekkee nag président Macky Sall dafa am loo xamante ne da koo ragal te ñun xamuñu ko nag ñu ko teel a wax waaye loi bi moom yàlla yàlla bu mu antu ndax nag ñi ci ñàkk dañoo bëri ñii matériel ñii euh, seen liggéey ñii seeni doom seen benn bant bi leen yàlla mayoon ñu ñàkk ko te dootuñu ko amaat ndax ñee ménopause nañ ñee mënatuñoo am doom léegi nag député yi ñoo ci des assemblée nationale.